kon mbokk yi incha allah ñu ngi war a jël tey suuratul xaj ci aaya seize bi wa kazalika anzalnaahu ayatin bayinat wa kazalika anzalnaahu ayatin bayinat alhamdulilahi rabbil alamin وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين mbokk yi ñu ngi santaat suñu boroom mi nga xam ne moo ñu dëppale ci ngëneelam ñu daje ci ab néegam di fas yéene jàng ab téeréem loole nekk jaamu yàlla gu rëy bu màgg yàll na yàlla subhanahu wa taala nangul ñu ko yeneen ci bi alayhi salaatu wasalaam nee na bari na ay xéewal yoo xam ni nit ñu bari dañ caa perte bokk na ca loolu asixatu wal faraar mooy yàlla may la wér may la ak jot mbokk sa jot googee xamal ni bokk na fa gën fa nga koy dépassé mooy ci néegu yàlla ba rawatina nag bu dëppook déglu kaddu borom bi yow mi nekk sa kërit jot googu la yàlla may xamal ni bokk na fa gën fa nga koy dépensé mooy ngay déglu ay audio yoo xam ne dalay jàngal di la fàttali sa diine wala mu doon la nga xamee ni nii ay télévision la falilahi alhamdu ñu ngi am suñu télévision islam tv bi bëgg a tasaare diine yal na yàlla jàpp ci kon tey mooy ñaar fukki fan ak ñett am déet ñaar normalement tey mooy 22 kon le 22 janvier 2020 di tombeeg le 27 ci jumaadul ola 1441 moom la sunu maam yi doon wax rakkaati gàmmo cheikh ousmane dafa nekk ci ab tukki kon incha allah Alioune Sarr moo ñuy jàngal tey suñu bind bu jëkk kon mi ngi noonu
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء
barakallahu fiikum kon suñu boroom mu ni auzu billahi min alsheytan irrajim wa kazalika anzalnaahu ayatin bayinat naka nii day lañ ko wàccee muy aaya yu leer naññ wa anna allaha yahdi man yurid ca yàlla day mooy jubal ku mu neex inna alladina amanu ñi nga xam ne day dañoo gëm walladina haadu ak ña nga xam ne ay yahud lañu wassaabiin ñooñu nga xam ne dañ doon jaamu ay biddiw ak i malaaka wan nasaara ñooñu wax ne dañoo gëm isa bnu maryam day chrétien wal majuus mooy ñooñu nga xam ne dañuy jaamu safara wallazina ashraku ak ñi nga xam ne ay xërëm lañuy jaamu inna allaha yafsilu baynahum yowma alqiyama ñoom ñépp day yàlla dana atte seen diggante boo yowma alqiyama ñëwi inna allaha ala kulli cheyin shahid suñu borom yàlla day bépp mbir ma nga nekk di ko séede alam taro mu ndax gisoo anna allaha yasjudu la ne yàlla day dana ko sujuutal man fi samawati wa man fi l ard ñépp ñu nekk ca asamaan ya ak suuf wa shamsu wal qamar jant ba ak weer ba wa nujuumu ak biddiw ya wal jibaalu wa shajar ak montagne ya ak garab ya wa dawaabu ak lépp loo xam ne ay bàyyimu la wa kathiru min annaas ak lu bari ci nit ña wa kathirun xaq alayhi al azab lu bari ci ñoom it yey na ci ñoom mbugal ga wa man yuhini llahu fa ma lahu min mukrim ku yàlla toroxal kenn mënu koo teral inna allaha yafalu ma yasha yàlla nag mooy def lu ko soob jalla wa ala mbokk gis nañu téere bi ñu tiim suñu borom nee na da ko wàccee muy aaya yu leer loolu lu lan nga ciy dégg yow julit suñu borom daa bëgg julit ñépp comprendre ay ndigalam comprendre ay tere mu leeral ko ci làmmiñu yonentam sant ab yonentam mu leeral ko ca ñam ko yónni yonent boobu sant ña ko waroon ne yéen it leeral leen ko ñu nekk seen gannaaw ba xamal ne yow julit la gën a yey ci li ngay xam ci kaw suuf moom mooy sa téere borom téere bii rek ngay dem yowmal qiyaama ñu laaj la ko yow maçon kenn du la laaj ak maçonnerie architecte duñ ko laaj ñu ñuy tracé bâtiment suñu borom nag mu ne téere bi innahu la zikrun laka wa li qawmika wa sawfa tusaluun alxuraan wàcce naa ko ñeel ak ñi ma la yónni yéen ñépp nag danaa leen laaj nan ngeen ko doon jëfe doonte ni ne suñu borom yàlla nee na mooy jubal ku ko neex cay jaamam nga war a boole ñaari mbir sabablu sa kémtalal kattan ngir xam ak njub waaye di ñaan foo toll yàlla boole la ci ñim jubal yàlla yàlla boole ñu ci yàlla ku ko neex jubal looloo tax booy jàng ak téeréem mu jox la ci ay misaal yu safaanoo ca wax nañ leen ko tafsir bu yàggul yonent yàlla noox moo ki gën a sonn ci yonent yi yàlla mësa yónni ci kaw suuf junni at mu yónni mu mu wate ko yàlla jubalul doomam jubalul soxnaam ñu dee kéeféer nar a dem naari jahannam gannaaw ba ki nga xam ne mooy firawna mooy ki gënoon a mbëru ku ñu xam ci kaw suuf yàlla dem jël soxnaam samuy bokkal benn lal jubal ko dugal ko ci lislaam loolu it kon mu lay jàngal ne ndekete suñu borom yàlla yahdi man yurid waaye wa yudillu man yurid loolu tax jurit foo toll del ñaan yàlla may la al hidaaya lan mooy hidaaya mooy nga dund ci njub ba dee ci lii moo tax foo toll nga koy ñaan ndax nekk ca yoon ba kat du lool de nit nekk na ca yoon ba juróom ñett fukki at avant muy dee mu dévier yàlla yàlla musul ñu ci loolu kon heure booy jàng fatiha di wax ihdina siratal mustaqim mooy yàlla xamal ma yoonu siratal mustaqim wërsëgal ma ma dund ca ba dee ci mi ngi noonu borom boobu nag di wax yowmal qiyaama mi ngi ñëw mbokk àdduna woote yi bari na lool tey jii jullit ñi ñi ngi yor seen téereb yàlla di woote ci njub waaye par contre yahud yaa ngi nii di financer des milliards ñoom it di woote lañ gëm nasaraan yi naka noonu am na ñoo xam ni ay saabiuun mën na am bareetuñ ci kaw suuf waaye ñoom dañ daan jaamu biddiw yi ak malaaka yi almajuus mooy ñi nga xam ni Iran la ko wër ñu bari ci ñoom safara lañ doon jaamu amma jaamukatu xërëm yi moom ñi ngi fii du jeex ba suñ jamono yi tey suñu borom nag mu ne ñii ñëpp yàlla dana leen dajale yowmal qiyaama atte leen ndax yàlla daa fekke lépp te mbokk la ñuy jëkk a wax ki fekke lépp rek mën a atte tey jii boo demoon ci ñiy atte même ñi jàng njàngum nasaraan lu ñuy wax mooy nous disons le droit mais nous ne rendons pas la justice moo dine ne bu ay nit ñëwee ak seen mbir dañ naan loi bi de lii la wax waaye aka bari ñu condamné koo xam ne innocent la am déet aka bari ñu relaxé koo xam ne nii coupable la lu tax mooy juge bi atte moom liñ koy wax rek la mën a atte woo ndax fekkewul mbir yi amma suñu borom nag moom moo fekke lépp ñaar ñay waxaale ca dara ca daral ga kay nekk ab ab gelam ca hôtel ba ñay nekk ci biir géej ñay nekk ci suufu souterrain ya fu doomu aadama mën a nekk suñu borom mi ngi seede ay mbiram inna allah ala kulli shay shahid te loolu mooy garaatu ihsaan bi nga xam ne jullit da koo war a yëg mooy taaral sa diine di ko protéger mooy nga xam ne foo toll yàlla mi ngi lay gis loolu it yonente bi alayhi salaam ci ay ñaanam bokkoon na ca mu neen ay yàlla yow mi bind asamaan yi ak suuf yow mi borom jibril ak mikaayil ak israfil yow mi nar a dajale say jaam atte leen yowmal qiyaama yàlla nag ma dëppaleeg lay dëgg ci juuyoo gën juuyoo ndax yaay jubal ku la neex ila siraatul mustaqim loolu ñu jàng ko néew xam nañ ko ci salaatul layli noonu la ko yonente bi alayhi salaam daan ubbee yàlla mi ko nanguloon yàlla ñu yàlla nangul borom bi nag wëlbati ko waat di wax ak yéeféer yi nga xam ne nanguwuñoo jullil borom bi mu ne xanaa xamu leen ni li nekk ci kaw asamaan yépp di malaaka ya li nekk ci kaw suuf di fi dund di lum mën a doon lu dul nit ak jinne ak jant bi ak weer bi ak biddiw yi ak montagne yi ak garab yi lépp ak dàbb yépp ñi ngi sujuutal yàlla jalla wa ala donte ne ni doomu aadama munoo xam nu ñuy sujuuti ndax tey doomu aadama ci boppam rek da ngay gis ni ñuy diine jàngale sujuut mooy da ngay teg sa jë ci suuf ak sa ñaari loxo ak say oom sa ñaari sa ñaari catu tànk loolu la yonent bi alayhi salaam waxoon waaye tey nit ki day feebar di julli toog ci chaise am naka lay sujuuti mooy da ngay gis ni buy rokkoo day def nii buy sujjóot mu gën a sëgg jeex na nga gis ko muy junj bopp bi ki xam shari moom day xam ni kii mi ngi rokkoo ko sujjóot loolu it mbokk gis nga garab jii di jaayu gis nga xar mii gis nga loo mën a xam ci kaw suuf xamal ni mi ngi sabbalal yàlla mi ngi jullil yàlla waaye xamul lu mu koy defee suñu borom nee na montagne yi ñu ngi sabbal am na ci ñoo xam ne sax wa minhum man yahbitu min xashyati llah am na ñoo xam ne dañ mabbu ngir ragal yàlla bu mujj montagne bi na groupe ci suuf loolu kon la jullit war a gëm suñu borom nag ni am na ci nit ñi nag ñoo bari ci ñoom ñuy sujuutal yàlla waaye am na ci bari ci ñoom ñoo xam ne mbugal yey na ci ñoom ñaari groupe rek a fi nekk nga bokk ci ñuy sujuutal yàlla wala nga bokk ci ñu mbugal yey ci ñoom looloo tax ba mbokk jullit walla waaye yow mi nga xam ne yaay naan laa ilaha illallah muhammad rasulullah boo kenn fexe ba sa xel nii ma wëlbati ko ba gëmloo ne la kat man ngaa nekk ci kaw suuf di jaamu yàlla dee dem aljana ci doo julli képp ku la wax lii mbokk jullit xamal ne réer na bëgg laa yóbbaal ci ak réer mbokk suñu borom yàlla mosul yónni benn diine ba mu dalee yónni diine ba tey diine bu amul julli musul am yàlla du nangul kenn diine bu amul julli loolu mënta nekk su ko defee suñu borom yàlla subhanahu wa taala ne yawmal qiyaama yawma yukshafu an saaqin wa yud'awna ila sujud fala yastati'un khashi'atan absaruhum tarhaquhum zilla wa qad kanu yud'awna ila sujud wa hum salimun nee na yowmal qiyaama dana wax ña fa nekk sujjuut leen ñépp sujjuut ay ñi daan sujjuut ñi daawul sujjuut seen gannaaw mel ne photo buñ bëggee sujjuut daanu seen gannaaw borom bi nee na li waraloon lii mooy adduna dañ leen santoon ñu sujjuut waaye ñoom ñu lankoon sujjuutuñu mi ngi noonu la mel ne benn waa jëréer ja waxoon aman julli ha sama jéeg yi dama laalee suuf dama fakkastalu def noonu sama ndey loolu moo may tax laal suuf ah gars yi xàq tay ree mbokk loolu musiba la loolu musiba la wala fekk ci sa baay fekk ci sa maam fekk ci kum mën a doon ngal way bu mu tax nga saxal loolu bu mu tax nga saxal loolu lu amul lenn lenn lu gën a nekk musiba ci doomu aadama mooy ñu xañ ko la nga xam ne mooy julli borom boobu nag di wone ne képp ko moo toroxal kenn mënu koo teral daan ci dégg it kum teral kenn mënu koo toroxal kon nga la waay yow mi nga xam ne da ngaa bëgg a teddaange man kaana yuridul izza fa inna al izza lillahi jamia mbokk teddaange xam nga mooy lan dee tabbi àjjana de waaye le président de la république des états-unis su dee ne la koy xaar mooy bu dee malaaka yu njoñ ko cheenu ko tabbal ko sawara ndax lii teddaanga la déedéet les plus grands milliardaires des milliardaires bu dee ne bu dee lañ koy xaare mooy ay chaîne njom sànni sa war a ndax lii teddaange la déedéet waaye kee nekk ca fa gën a sori ci fuuta wala jolof ca néegu ñax ya waaye lan moo koy xaar bis buy dee malaaka ñëw escorté ko di ko tagg ba mu génnee bàmmeelam ñu koy escorté di ko tagg bala ko sa kërub àddinaa ngi nii mbokk lii rek mooy teddaange yàlla na yàlla teral ñu àdduna ak alaxira bismillah
هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا عذابهم من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يسهر به ما في بطونهم والجنود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير
barakallahu fiikum mbokk suñu borom mu ne haadaani xasmaani ixtasamu fi rabbihim ñaari dagg santekat ñi ngi nii di dagg sante ci seen borom fa lazina kafaru ña nga xam ne dañoo weddi xutti at lahum thiyaabu min naar ñoom day dogal nañu leen ay mbubb ca sawara yusabbu min fawqi ru'usihim alhamim di sotti ci seen kaw bopp ya lii di ndoxum xamim muy fa tàngoor yam ci tàngaay yusxaru bihi ma fi butunihim wal jurud loo xam ne dana ruyal la nekk seen biir ya ak seen der ya walahum maqaami'u min xadid dana leen ñeelit ay bolde yoo xam ne bolde weñ lay doon muy ngi noonu kullama araadu an yaxruju minha heure bu ñu bëggee man génne ca sawara soosee min xam min ca la nga xam ne mooy tiis ba ñu nekk wala mer mu sawara mer uidu fiha dees na lañ fa delloo wa zuuqu azab alxariq di leen wax mos leen mbëgulum lakkaate bi inna allaha yudxilu alladina amanu wa amilu salihat yàlla nag mooy dugal ña nga xam ne dañoo gëm cay def lu baax jannatin tajri min taxtiha al anhaar àjjana yoo xam ne day daw ca suufam ay dex yuxallawna fiha dees na leen fa takkaayale min asaawira min zahab ci ay lam yoo xam ne lami or lay doon wa lu'lu'a ak ay perle yu ñu tuddi lu'lu wa libaasuhum fiha xariir seen yére yañ fay sol nag soit pur lay doon mi ngi noonu mbokk suñu borom day wax ñaar ñiy dagg sante ci seen mbiri borom te ñooñu mooy yéeféer bi ak fu mu mën a bokk ak ab jullit fuñ mën a nekk donte ne ne aaya it danañu fàttali benn la Ali ibn Abi Talib waxoon ne aaya yi day ñun ñoo tax mu wàcc ñun ñoo tax mu wàcc ca keroog xare Badr ba nga xamee ni nii rasul sallallahu alayhi wasallam dañoo jàkkaarloo ak yéeféer yi booba lañu xamoon mooy corps à corps buy am avant xeex bi di am ca la yonent bi alei salatu wasalaam waa makka ay kàngam génn ca mi ngi noonu daal di ñëw ne nañ jàkkaarloog yéeféer yi ba nga xam ne nii ay utba ibnu rabia mi ngi noonu shayba ibnu rabia ak walid ibnu utba ñetti ponkoli jàmbaar waa Quraysh daa di ne yéen jullit ñi kan moo ci ñemee def ak ñun koor à koor yonent bi alayhi salaam dem jël ci famille jël ali ibn abi talib jël hamza ibn abdul muttalib daa di jël ki nga xam ne mooy alxaaris shayba ibn alxaarisa ibn abdul muttalib ñoom ñëpp bokk ci ahlul bayt ñoo jëkk a jàkkaarloog yéeféer yooyee ba ñu demee ali rey kim jàkkaar lool hamza rey kim jàkkaar lool ka nga xamee ne nii moom mooy alxaaris shayba shayba ibnu xaarisa boobu ah moog walit ñu cawantee jaasi loolee da ngay gis ca la daanoo looloo ko rey ali ibnu abi talib ak hamza ñëw rey ka nga xam ne ni mooy walit loolu avant xare badr bi di commencé jullit ñépp kontaan nañu ci ne corps à corps yooyu fu ñu ko masaan def ña gañe ca corps à corps ba ñooy gañe guerre bi te mooy li ñu tuddee gàtt nga go rafet yéen ñëpp yéen a ngi fàttaliku armée Taalut ba mu dajeeg armée Jaaluuta ba Jaaluuta génnee na ko ñemee koor a koor kenn ñemewul génn ndax rëy gëm rëyoon ca la Daawuda fekk ndaw la yàlla yónnee ko ko sax dem jàkkaarloog moom rey ko ba mu ko reyee rek ci la desutu armée ba daw loolee kon benn mbir la bu ñu war a fàttaliku suñu jeunesse bi tey ana ñan la ñu xam ay Sadio Mané mi ngi noo nekk ay kenn xamul sportif yi dul jeex mais ñi nga xam ne ñoo joxewal seen deret joxe seeni bakkan ba li salaam yegg si ñun ndax xam nañ leen xamuñu leen jéemuñu leen sax xam donte ne ne nit ñi ñu ngi def seen temtaleel kattan jàkk bi ngi ñu toog ñi ngi ko duppee Saad ibn Abi Waqas jàkk bi suñ mbokk Ousmane Galla du jiite ñi ngi ko tuddee Abu Obayda Amir ibn al-Jarrah jàkk bi sunu mbokk imam Abubakar Sall jët ñi nga ko tuddoo Omar ibnul Xattaab loolee pour ndaw yi jullit ñi xam ñen ñooy seen référence yéen ndaw jullit ñi Sadio Mané du seen référence seen référence dëgg dëgg dëgg mooy ña nga xam ne bu ngeen leen royee jaar ci seen yoon ñu tabbaleen aljanna ñooñu la suñu borom wax ulaayka lazina hada allah fa bi hudahum yaqtaj ñiy royukaay dëgg dëgg mooy jàmbaar yi islam yooyee loolee ñu bàyyi ci xel bu baax su ko defee kon suñu borom yàlla loolu lay wax ci loolee gannaaw ba nag daa di wëlbatikuwaat ci la nga xamee ne nii borom bi wax na ko mu ne yéeféer yooyu day yoomal qiyaama dañ leen daggal ay mbubb ci sawara ay mbubbi sawara yoo xam ne ni feneen leen a goudron lay doon gannaaw ba seen bopp yi ñu toj ko jël ndox di sotti ca bopp ya mu jaar ci put ya di baxal la nga xam ne mu nekk ca biir ya ca mbokk mbugalu yàlla kenn mënu ko imaginer ci àdduna kenn du mbugal mbugalam borom boobu it nee na da leen fa ñeel ay bolde bolde yooyee yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na suñu dajale woon nit ñëpp jox leen benn bolde malaaka ne leen yëkkati leen ko mënuñu ko yëkkati question bi ngay posé waa loolu buñ ko dóoree nit nu muy mel waaye mbokk suñu boroom ab yéeféer bu muy dugal sawara def lay rëyal ba am na ci ay riwaay yu naan dana rëy ba toll ne Makka ak Madina yonent bi alei salam ne ne benn bëñu yéeféer ci safara day toll ne jabalu Uhud kon noonu la ko yàlla di defee bu ko defee malaaka yi tim leen ak bold yooyee borom bi subhanahu wa taala loolu mu wax ci mbugal bu tar boobu nga xam ne kenn mënul mbugale comme mbugalam nee na dañ ca boole it di leen sabooti heure bu ñu bëggee génn sawara min xam am na ñu ko firi njàqare ba nekk ak tiis ba donte ni am na ñu firi xam ba mooy mer bu seytaane di mer di fuddu yéefiri di jóg bu ko defee malaaka yi nekk ci biti di dóor ñuy duggaat ci biir malaaka yi boole ci leen di leen saboote ca mbokk mbugal yi ñuy wax ci sawara sooy xalaat ci kaw nii rek da nga naan ah loolu ku ko jege sax teqali koog sa xel ndax un millième ba bu ñu ko tegoon ci doomu aadama mu dem dans le coma waaye déedéet mbugalu sawara noonu mu tare dee di leen jóge fu nekk noonu la leen yàlla di bàyyee seen xel ñu koy yéeg à cent pour cent loolu tax malaaka yi dañuy boole di di leen mbugal boole ci di leen saboote mos leen mbugalum sawara mi ngeen doon weddi mbokk mi ngi noonu am na ñi nga xam ne dañoo gëmoon cay def lu baax ak fu ñu mën a bokk ak ku leen mën a jur ak fu ñu mën a juddoo waaye gëm nañ la yàlla gëmlu def nañ digal di yàlla deflu suñu borom nee na ñooñu yàlla moo leen di dugal ajjana gis nga yàlla moo féete woo dugal ga inna allaha yudxil yàlla moo leen di dugal ajjana joo xam ne dex yaa ngi fay daw ca suufu immeuble ya suufu jardin ya dexi meew yaa ngi dexi lem yaa ngi dexi sangar yaa ngi mi ngi noonu dexi ndox yu bokkul ak li am adduna amul lenn loo xam ne da nga koy dégg aljanna ñu gis ko ci kaw suuf lu dul ay tur ay tur rek waaye boo mosee xam ne bokkul mi ngi mel ne lam leen di takkaayale or ba ñuy wax bokkul ak ooru adduna perle lu'lu ya bokkul ak yu àdduna soit bañ leen di wadde bokkul ak lu àdduna ajjana suñu yeneen ci sallallahu alayhi wa sallam nee na mooy maa la aynun ra'at wala uznun samiat wala xatara ala qalbi bashar ajjana la fa nekk bët mësu koo gis nopp mësu koo dégg xel mënul imaginer ba imaginer naka la war a mel dem gis rek la yal na yàlla yóbbu ñu fa mi ngi noonu ci waal yi
وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الجحيم وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذكروا في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق barakallahu fikum kon suñu borom subhanahu wa ta'ala mu ne non suñu borom subhanahu wa ta'ala mu ne wa hudu ila at-tayyib min al-qawl ñoom day dañ leen a jubal calatee ci ay wax wa hudu ila siratil hamid ñoom day dañ leen a jubal ca yoonu ka nga xam ne moo yeyoo cant yépp bi suñu borom jalla wa ala inna lazina kafaru ña nga xam ne nag dañoo weddi wa yasudduuna an sabilillah di fegaate ci yoonu yàlla wal masjidil haram di fekk nit ñi ca masjidul haram muy jàkk dañ warmaal allazi ja'alnaahu linnaas jàkk jooju ñi def ñeel nit ñi sawaan al aakifu fiihi wal baat nga xam ne yemoo na ka nga xam ne moo fa sax ak ka nga xam ne moo fay deme ko dikk mi ngi noonu wa man yurid fihi bi ilhaad bi zulm koo xam ne dafa bëgg di fa jeng jëm ci tooñ nuziquhu min azabin alim daañ ko mosal ci mbugal mu tar wa is bawwa'na li ibrahima makaan al bayt fàttalikul ba ñuy dalal ibrahima palaasu néeg ba ala al alla tushrik billahi shay'a ca mooy ñu ne ko ibrahim bul bokkaaleeg yàlla dara wa tahir baytiya li taifin na nga laabal sama néeg bi ñeel ñi koy wër wal qaimin ak ñi nga xam ne dañ fiy taxaw wa rukaan yi sujud ak ñi fi rukoo ko sujud wa azin fi nnaas bil hajj ca nga yëgle ci nit ñi woo leen jëme leen ci acc yatuuka rijaala daañ li dikkal di aji dox wa ala kulli daamir daañ li dikkal ci kaw bépp waruwaay yatiina min kulli fajjin amiq daañ dikkee ci bépp yoon wu yaa boo xam ne nii bu sori la donte ne faj ji ña ngi koy gën a bari wax yoon ya nekk ci diggante montagne ya mi ngi noonu mbokk suñu boroom mi ngi wax waa aljanna nee na waa aljanna day suñu boroom moo leen jubal ca kaddu gu teey ga jubal googu ñaari façon jubal la mooy ci àdduna yàlla dëppale woon na leen ak kaddu gu teey daawuñu wax lu dul lu jub la gën a tey ci kaddu mooy kaddu laa ilaha illa allah moom la borom bi di wax naan alam tara kayfa daraba allahu masalan kalimatan tayiba gannaaw ba bépp kaddu bu yàlla gërëm ci woote jëme lu baax ci tere lu bon ci sabbal yàlla ci màggal yàlla lu lépp kaddu gu tey la kon jurit bi ci loolu lu dundoon waaye wahudu ila tayibi min al qawl suñ demee àjjana it ñoo ngi leen di jubal ci kër goo xam ne kàddu gu tey rek moo fa nekk laa yasma'una fiha lagwan wala ta'sima illa qiilan salaaman salaama mbokk àjjana kenn du fa dégg benn coow benn mboosóor bépp wax bu déplacé loo fa dégg rek luy bégal xol la doo fa dégg benn information bu jóge ci yow wala jóge ci keneen boo xam ne tiis la loo dégg àjjana rek luy bégal xol la salaaman salaama borom boobu it ne dañ leen a jubaloon ca yoonu yàlla mi nga xam ne moo yeyoo cant yi ca mbokk yoon bi la yàlla tëralal boo góorgóorloo ba jaar ca fin ba rek mooy alhamdulillahi rabbil alamin loolu tax waa àjjana buñ demee bokk na la ñuy njëkk a wax alhamdulillahi lazi hadana li hada aw alhamdulillahi lazi awrasana aljanna natabawa minha haysu nasha mooy sant yàlla mi leen yàlla déppale woon yoon bu tedd bii di yoonu lislaam nga xam ne kuy borom xel dana xam ne lépp lu mu woote jëm rek day doon xéewalug adduna ak xéewalug alaxira siratul hamid borom boobu nag bàyyi loolu delluwaat ci yéefiri makka yi nga xam ne dañ doon fekk nit ñi pour kenn ba ñu dugg ci lislaam bi yonent bi gàddaayee dem madina keroog ca atum juróom benneel ma mu ànd ak saxaaba ya ngir bëgg a ziyaar ci kaaba ga ñu taxaw ne ko doo fi dugg borom boobu ne tey ñi de tooñ nañu ndax ba muy tëral masjidul haram day dama ko yemele ña fa dëkk ak ña fay ñëw ca loolu it respecté woon nañ ko ci mboolem yéeféer ak lu waa makka masa siq ak yow su dee la la yëkkati mooy kaaba ga kenn daw la baare waaye nag ba mu des lislaam ndax seen mbokk yéeféer reconnaître nañ seeni xërëm islaam nag daa ñëw ne seen xërëm yi du dara moo tax ñu ne jullit moom di fi dugg baram boobu nag daa dina xoolal ñii nga xam ne dañ leen fa waroon a dàqe ñoom ñooy tere masjidul haram waaye da ngay xool li yàlla mujj a def teguñu ca lu dul ñaari at yonent bi alayhi salaatu wasalaam ubbi makka gannaaw ba ci déwén sa ñu def déclaration ne bu benn yéeféer dugg ci makka bañ ko waxee ba suñ jamono yi tey benn yéeféer duggatul makka suñu borom yàlla nag subhanahu wa taala ne makkaa ngi nii ku fa bëgg a def lu bon day danaa ko teg mbugal mu tar mbokk fu mu mën a doon ci kaw suuf lay tax yàlla bindal la bakkaar mooy dangaa bëgg a def lu bon gannaaw ba nga def ko walla boog yàlla indi ay mbiram waaye yow rëccoo amma bu dee makka suñu borom nee na ku fa bëgg a def lu bon danaa ko mbugal looloo tax ba bu ñu xoolee ku mel ne Abdullah ibnu Omar dafa demoon ba ca frontière u Makka mi ngi noonu mu dëkk fa mi ngi mel ne rek buñ noonu Parcelles Assainies mooy Makka moom daa dem dëkki Padoa léegi ñu ne ko lu tax doo dugg ci biir alxaramul makki mu ne xanaa déggu leen di yàlla wax ku fa bëgg a def lu bon yàlla da koy mbugal kon foofu la dëkk su bëggee jaamu si yàlla nag dugg biir Makka papaam Omar ibnul Xattaab suñu ma sànn aj Makka ba pare xam ngeen presque fukki at jiite na ko aj Makka da daan wax ee yéen nit ñi dem leen ñibbi moom ngeen di gën a joxe cër kaaba gi bala ngeen di yàgg Makka soofantal néegub yàlla bi ku fi bëgg a def lu bon yàlla mbugal la ca la ñu gis yéen abdullah ibnu habba ak ibnu abbas nga xam ne mooy fóore xeet bi moom it dafa demoon dëkk taif ñu ne ko wal ndax duggoo makka mu ne déedéet ndax suñu borom nee na ku fi bëgg a def lu bon yàlla mbugal ko kon naa bàyyi rek su ma bëggee jaamu yàlla ñëw umra jaamu yàlla mbokk kon makka ngi noonu suñu borom yàlla maggal ko maggal goo xam ni sant na jaamam bi ibrahim ngiree mu daal di yëkkati kaaba ga lam ko fa jëkk a sant mooy bul ma bokkaale dara ca laabalal sama néeg bi mbokk màkk dañ ko war a laabal néegu yàlla dañ ko war a laabal la gën a yey luñ koy laabale mooy génne fa lépp loo xam ne shirk la lépp loo xam ne shirk la loolu tax am na lu mujj dab lislaam yonent bi alayhi salaam waxoon na ci kemtaleel kattanam ca moo di ne jël xabru di ko dugal ci bàmmeel jël xabru di ko dugal ci jàkka wala fekk xabru nga tabax fa jàkka yonent bi alei salatu wasalaam daana wax ne yahud yi day yàlla rëbb na leen ndax seen yonent ya ba ñu dee dañ leen yóbbu fañ doon jaamoo yàlla suul leen fa jël xabru yenn yonent tabax fa jàkka loolee kon mbokk ñu xam ne jaaduwul benn waay na la ah yonent bi alei salaam na nga ca jàkkaam naam loolu liy dëgg la waaye boo jàngee ña xam histoire daañ la wax ne yonent bi kenn suulu ko woon ci jàkkaar yonent bi dana woon ab yonente fam faatoo la yàlla bëgg ñu suul ko fa looloo tax ma nga faatoo ci néeg yaay Aïcha dañoo toxal lal bi rek suul ko foofu jàkka ja nekk ne néeg yaay Aïcha nekk nii kër yonent bi nekk nii bañ demee ba lu jege presque ab siècle ca la ay buur ñëw toj kër ga boole ko ca jàkka ja waaye mbokk ñu xam ne jàkka kenn du ko tabax ci kaw bàmmeel bàmmeel kenn du ci dugal kenn du ko dugal ci jàkka gannaaw loolu it ñu laabal ko ci lépp loo xam ne salte la ñeel ñan ña nga xam ne ñooy ñëw di wër kaaba ga muy benn place bi ñuy wër ci kaw suuf muy kaaba ga waaye mbokk bi ñu yàlla nattoo njiit yu réer mbooloo ma seen gannaaw mënuñu lu dul réer bañ demee ba jël xabru sëñ caam ak xabru sëñ sow encadré ko ba mel ne kaaba gars yi it biñ ñëwee dañ ko commencé di wër ni ñuy wër kaaba ga am déet ngi noonu Sénégal gi am na ñaata xabru lañ fiy wër am na ñoo xam ne buñ demee ziar ba mel ah maa ngi suma benn mbokk Ousmane Seye hafizahullah mas naa ànd ak moom ñu romb benn xabru mu ne sama xarit diw mi ma indi fii warloo ma ko juróom-ñaari yoon julli lu ma fi ñaari rakk du ma ko bal mi la yow mi diine yaa ngi dégg waaye moo ko xoolal loolu dañuy ñëw wër bàmmeel bi juróom-ñaari yoon julli ñaari rakka comme lañ koy defee ca Kaaba ga mbooloo mi xamuñu waaye ñooñee nga xam ne ñooy def loolu ay xabru yoo xam ne dañ naan dépense nañ ci huit cent millions di ko bakkoo xabru yoo xam ne lañ ci def jege na un milliard nu ñuy def ba duñ ko wër waaye mbokk loolu musiba la amul lenn lenn du jumaa yonent bi sallallahu alayhi wasallam du masjidul aqsa amul lenn loo xam ne daañ ko wër ci kaw suuf lu dul kaaba ga néego borom ba laabal ko ñeel ñiy wër laabal ko ñeel ñi fiy taxaw di rukkoo ak sujud mbokk loolu lu ñu suñu borom di jàngal yàlla waroon na wax rek ñi fiy julli waaye dalay won importance bi nekk ci taxaw ci julli nga la wa yow mbokk jullit xamal ni kiy julli taxaw 30 secondes rek daal di sëgg yemul ak kii taxaw 3 minutes doog a sëgg taxawaay ci julli mbokk ci place yi gën a mag la bokk buñ la waxee julli ga yonent bi doon jullee nga xam ne dañ naan la en moyenne julli fajar la ëppoon daana jàng lu jege juróom benn fukki aaya tey jii genn wàll gi imam bu ko def ñu jàpp ni indi na fitna rawatina réew mi mel ne Sénégal mas naa leen nettali benn mbir dafa am benn waay bu fi jaar ci tisbaar jullee fi tisbaar jàll dem fële unité 24 fekk fa ay nit ne leen bisimilaay jàmm maa ngi romb fa benn jàkk imam bi taxaw taxaw dama ñu ma xanaa man dama dugg laaxira waaw léegi bi mu ñëwee ndekete ñooñu xam nañ ma ñu ne ko waa mais kooku koy xam nañ ko imam Sarr la fekk yàlla dogal na benn ci suñuy soxna ci kër ga la jógee loolu mu wax loolu mu yéema ci ñu teg ci ay at rek mu dem Makka bi mu demee Makka mu dellu kër ga ne hey seen imam bi mu ne la xam Makka noonu lu ñu jullee kat yaa ngi dégg ñu ngi noonu ndeysaan waa ji faatu na yàlla ko yàlla yërëm waaye da ngay gis ne imam Thiam ina ansalnaahu li ilaafi Quraysh jeex na fatiha bala ngaa ne wala daari bala sëgg na mbokk loolu imam inspecteur Samb yaakaar naa am na vidéo bu ma la wan de benn góor boo xam ne nii gars yi buñ la wane internet bi ni ñuy jullee mbokk julli gi du am rokoo du am sujjóot taf taf taf taf taf ca kooku boo ko xoolee ëppal na juróom-ñaar fukki at loolu nag mbokk la suñu borom di woo jëme ci booy julli taxawal taxawaay bu jekk jàngal fatiha ak la yey nga jàng ko ci ay saar rukool ba rukoo ba ku taxaw fee siin la xam ne keekat daa rukoo sujuutal ba ku taxaw fee siin la xam ne daa sujuut loolee mbokk la ñu borom bi wax waru ko i sujuut gannaaw ba nag mu ne ko ibrahim woowal nit ñi ñu ñëw aj si makka ñëw na ci ay yenn riwaaya ibrahima na ah yàlla désert bi ku ma fii woo suñu borom ne ko wooteel may jottali mu ne ay yéen nit ñi seen borom ne li ngeen ñëw at si mboolem ñi yàlla tuddoon ne dañ aji ji makka wuyu nañu ci aalamul xëy bi wooteem ibrahima boobu ca labbayka allahuma labbayka yal na yàlla boole ñu ci ak bépp julit loole yéemul ibrahim alayhi salaam tey ñun ñuy dund suñu jamono tey Arabie saoudite réew mu ne quota la koy jox réew mu nekk amoo droit lu la neex yóbbu makka ndax kon kenn dootu mën a aji loolu tax réew mu nekk dañ lay jox quota bu méngoo sa population ne la lii dong nga am droit indi kon yaakaar naa woote ba dégg nañ ko borom boobu nag ne ko boo wootee dana am ñu dox ñëw yal na yàlla fayal ñu sun maam yu jëkk ya ña jëkk a jóge fii dem makka mbokk booba bato xewul bato mooy bi fi tubaab bi indee la lañ xam bato dañ daan dox dem maam yi daan nibbisi ñu bari ca at ga lañ daan des maam yi daan nibbisi lu mu néew néew ñetti at ngay def bala ngaa nibbisi téléphone amul rajo amul soo xisee ba génn ci sa kër kenn xamatul ci yow dara la ëpp ci ñoom dañ daan miraas seen bopp doo ko dem loolee mbokk mi ngi noonu loolu it moo tax ñu ngi lay ñaaxit yow ndawal julit da ngay nekk yaa ngay jënd ay oto yaa ngay jënd ay nangam yaa ngay loolu lépp day bu dee nécessité bu taxaw baax na waaye nag boo la ci sóoraale dem makka balaa sa kattan di jeex ndax aj makka dafa laaj kattan yal na yàlla yombal ko ci ñun ak bépp jullit mi ngi noonu Cheikh Ali barakallahu fikum jazakumullahu xayra kon suñu borom mu ne li yashhadu manafi'a lahum ngir ñu daal di seede fekkee ay njëriñ ñeel leen wa yazkuru isma allahi ñuy tudd turu yàlla fi ayaami maalumaat ca la nga xam ne nii mooy bis yu ñu tudd mi ngi noonu yu ñu xam bis yu ñu xam ala ma razaqahum min bahimati al an'am ca la leen yàlla wërsëgal ca bàyyuma ya bokk ci jur ga bahima mooy lépp loo xam ne du wax animal an'am nag mooy xar bëy nag giléem fa kulu minha lekk leen ca jur googee wa atimul baa'is na ngeen ca may mu lekk koo xam ne ak ñàkkam dafa feeñ alfaqir koo xam ne it dafa ñàkk ñàkk goo xam ne gu nëbbu la summa yaqdu tafassahum gannaaw ba nag nañu teggi tilim ya nekkoon ci ñoom ñu dindi ko wal yuufu nuzurahum ñu daal di matal yéene ya nga xam ne dañu ko yéene woon wal yatawafu bil bayt al atiq daa di wër nag ca néeg boobee nga xam ne mooy néeg ba ñu goreel ba dalika wa man yuazim xurumatillah mi ngi noonu ci képp koo xam ne màggal na la nga xam ne ay war may yàlla la fa huwa xayrun lahu inda rabbi loolu de moo gën ñeel ko ca boroomam wa uxillat lakum al an'am daganal nañ ñeel leen jurga illa ma yutla alaykum lu dul loo xam ne dañ koo jàngoon ci yéen fajtanibu rijsa min al awsaan moytu leen lépp loo xam ne ay sobe la ca xërëm ya wajtanibu qawla zuur te ngeen moytu bépp wax boo xam ni ay waxi fen la mi ngi noonu waxi duural bokk suñu boroom woone Ibrahim na ko wooteel nit ñi daan ñëw di fekke njëriñ ñeel leen muy njëriñu àdduna ak njëriñu àllaaxira mbokk masjidul haram yonent bi alayhi salaam nee na julli goo fa julli égal téeméeri junniy julli boo julli feneen fu dul foofu gaa yi loolu yéeme na de yonent bi waxul téeméer waxul junni waaye dane téeméeri junniy julli benn julli ba nga julli masjidul haram moo gën téeméeri junni yoo julli feneen amma bu dee jàkk yonent bi alayhi salaam ca Madina julli goo fa julli égal junniy julli boo julli feneen kon loolu dong bu dul woon ak aj makka loolu dong jaroon na dem makka ki dem makka ak nam naka yàlla waxe yonent bi alei salaam nee na payam mooy àjjana rek kon manaafi aluhum noonu it lañu yàlla maye ci wàllu adduna bu la neexee yóbbaale say këccax ak say géej jaay booy ñëw jënd say mbubb ak say nangam jaay loolu mi ngi noonu échange am fa ñu tudd yàlla ci bis yu ñu xam te bis yooyu mooy fukki fan yu ubbi tabaski moom lañ daan tuddee ay yaamul maalumaat yonent bi alayhi salaam nee na mooy fan yi gën ci at mi yëpp fan yi gën ci at mi yëpp nga xam ne kenn mënul defal yàlla benn jaamu yàlla gërëm ko nam ko gërëmee ci fukki fan yooyee ba sahaaba yi laaj ko xatta jihaad fi sabilillah mu ne xatta fi sa jihaad fi sabilillah lu dul koo xam ne daa dem bakkanam des fa alalam des fa borom bi subhanahu wa taala mu ne ñu tudd ko ci bàyyi may ay rey fa lañ fa mën a rey ci giléem nag xar bay borom bi mu ne lekk leen ci ca may ci ña nga xam ne dañoo ñàkk comme ni mu ñu ko santaane ci tabaski gannaaw loolu nag bu fukki fan ya matee ci bisu tabaski ba borom bi mu ne ngeen teggi seen tilim ya ca mooy ki armal dañu ko tere mu watu tere ko mu lelli ay weyam tere ko mu parfum ak yu deme noonu waaye dindi leen seen tilim allahuma am na nag ñoo xam ne dañoo jàpp ne li yàlla wax fii mooy kon ki xis ba armal amul droit sangu amul droit fóot armalam waaye déedéet mbokk ki armal makka am na droit changer armalam nu mu ko neexe am na droit sangu nu mu ko neexe lañ koy tere mooy bul watu bul dagg say we bul tuur sa deret ila axiri gannaaw ba mu ne nañ matal seen niseur te mooy rey la nga xam ne dañ ko war a rey su dee da nga def tamattu wala nga def xiraan gannaaw ba nga wër kaaba ga te mooy wër ba nga xam ne ponk la ci at moom la ñuy tudde tawaaful ifaada ba ngay def ca bisu fukkeel ba wër néeg boobu nga xam ne tudde nañ ko baytul atiq atiq dana firi mooy néeg bu yàgg baax nga xam ne mooy njëlbeenu néeg bi ñuy jëkk a tabax ci kaw suuf jublu ci jaamu yàlla mooy kaaba ga tudde nañ ko al atiq it mu jóge ci itq ca itq ca mooy ak goreel ca mooy makka benn buur musu ko colonisé jamono bi nga xam ne grande puissance yi fi nekkoon muy Faris Rome Éthiopie yu deme noonu Makka moom benn buur musu ko coloniser yàllaa ko goreel kenn ko doon jéem di abrahata indi ay ñeyam la ca topp yéen ñépp xam ngeen ko alam tara kayfa faala rabbuka bi ashabil fiil borom boobu nag ne mi ngi noonu lii nga xam ne nag mooy li yàlla wormaal ne lii bu leen ko def lii bu leen ko def képp ko màggal yàlla ba bàyyi ko day moo gën ci moom te wallahi mboo ko jullitin xamal loolu yàlla lum la xaraamal rek bàyyi koo gën ci yow loolu yéen ñëpp xam ngeen ko gaa yi ñëpp xam ngeen sangara baaxul waay njaaloo baaxul waay waaye lépp lu yàlla araamal noonu la mel nga bàyyi ko moo gën ci yow tey jii tubaab bi taaral nañu riba ba ñu intellectuel yu bëri jàpp nañ ne ah non suñ jamono ji kenn mënu cee mën a jëfandikoo riba waaye déedéet wallahi boo muñee bàyyi riba moo gën ci yow carte gii ñu taaral tey ci pays mi e waaye muñ ko moo gën ci yow lépp loo xam ne lu xaram la muñ ko moo gën ci yow xayrun lahu inda rabbi borom bi nag nee na daganal naa leen jur gi ngeen lekk ci nu leen neex mu safaanoog waa makka tëraloon nañu saaiba wasila xaam ca nag ya xar ya giléem ya am nañ ci ay catégorie yu dul jeex yoo xam ne yii dañ koo araamal mutlaqan góor du ko lekk jigéen du ko lekk am ci yoo xam ne dañ ne waaw lii moom góor mën na ko lekk waaye jigéen du ko lekk suñu borom mu ne déedéet mboolem an am araamal na daganal naa leen ko ci yéen lekk leen ko ca ngeen moytu ay jaamu xërëm moytu waxi dooral ca mbokk moom mooy sos sos googu nga xam ne tey jii nit ñi defuñu ko muy dara rawatina bi réseaux sociaux yi xewee tey borom bi subhanahu wa taala tere ko yonent bi alayhi salatu wasalaam toog ak sahaaba yi ne mooy xanaa du ngeen kaay ma wax leen akbaril kabair li gën a màgg ci bakkaar yi sahaaba yi ne ko hakay mu ne moom mooy bokkaale ak sa borom def lu ñaaw jëm ca waajur ya ñetteel ba mu ne ala wa qawlu zuur wa shahadatu zuur ak it wax ay fen ak seede ay fen di ko répété di ko répété ba benn saxaaba bu fa nekkoon di abi bakarata ne yaa laytuhu sakat e waaye ak loxol yonent bi noppi ngir li muy répété qawlu zuur shahadatu zuur su ko defee mbokk xamal ne jullit de xëy na du ñàkk defu waaye ngal la waay say défaut bu ci fen mbokk kenn du mandarga julit du melokaanu julit yal na yàlla boole ci ñu dëggu yàlla boole ñu ànd ak ñuy dëggu yal nañu yàlla defal ñu àddina yi sunu wàccuwaay musul ñu ci lépp li tolof tolof fi àdduna ak alaxira wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain وحلت لكم الأنعام إلا ما يطلع عليكم برم سبحانه وتعالى من لما دغن الجري كرغي لدل لما لين تدل la ca yàlla subhanahu wa taala tudd mooy la nga xam ne dafa lam koy waxe ca suratul maida mooy almutaraddiya annatiha ma akala sabu ila axiri mooy lépp loo xam ne nii dafa dee dee boo xam ne nii bokkul ak illa ma zakaytum la ngeen ren li jur gu mel noonee kenn du ko lekk gannaaw bi illa ma yutla aleykum mooy la yàlla araamal moom tudd na ko ci ab téere mooy yàlla araamal na bam xuux araamal na lépp loo xam ne dañ koo rendi fekk ab xërëm lañ ko rendil ak yu deme noonu kon la yàlla araamal ci ab téeréem moo tax mu ne jur gi day dagan na waaye nag la ca yàlla tudd ne lii moom araam na bu ko kenn jege mooy illa ma yutla aleykum mi ngi noonu barakallahu fikum naam bismillah bismillah
li doon ne aussi dañ wax ne aussi kaaba gi ku ko def ku ko def aj da nga war da nga war wóor wóor chaque fois mais su fekkee wóorloo ko chaque fois yi matul ndax am nga ko
la nga xamee ne nii mooy arafat moom borom xam-xam yi dëppoo nañ ci ne ku ko wo ku ko taxawul arafat sa at moom baaxul yonent bi nee na alxajju arafa loolu moom ku fa demul sa at baaxul moo tax wax nañ leen ko fi tafsir yi passé yal na yàlla fay dawla saoudien yi xatta ña nga xam ne dañoo feebar nekk ci hôpital yi di su arafat ambulance yi dañ leen di jël yóbbu leen hôpital spécial bu nekk foofu ñu fekkee arafat ñu doog leen yóbbu ca hôpital yi ñu leen hospitalisé am na nag waa ji nga xam ne wër kaaba matul ndax kooku dañ leen ajam baaxul duñu wax ajam baaxul waaye dañ leen ajam manki na mooy aj ga daal aj la goo xam ne nii gu manqué la waaye borom xam-xam yi waxuñu ne ki juróom-ñaari wëram matul aj ga yàqu na mi ngi noonu fokk daal da nga ko wër waaye am na lenn ci ay sahaaba yu doon wax naan man day ba muy wër xaw ma juróom benn laa wër xaw ma juróom laa wër al muhim daal juróom ñaari yoon lañ ko war a wër safa ak marwa juróom ñaari yoon lañ ko war a lañ ko war a aller un retour deux te it loolu ngeen bàyyi ko xel bu baax su ngeen demee mbokk buy dem makka ngeen wax ko wallaay ren jii rek am nañ benn doom boo xam ne ci doomu jàkka ji la ñàkk a xam safa ak marwa quatorze fois la ko def ndax daa jàpp ne da ngay jóge safa dem marwa dellu si muy un nga jóge dem muy deux déedéet mooy boo boo demee safa jóge safa marwa un boo dellu see deux loolu daal kon ci gàttal loolu la ñu mën a wax fexeel ba sa juróom ñaari tour mat sëkk loolu wallahu subhanahu wa taala alam naam bismillah waaw alayhi salaam ndax koo xam ni li muy faggoo alal liwum ca ndax kooku bu la joxee war ngaa jël loolu day boo demoon yéen xale ndaw yi jàng na ngeen dem lu ñu tudd subulu salaam ci charx la nga xamee ne nii moom mooy bulugul maram dana fa wax bunt bu yaatoo yaatu ci loolu ci ixtilaafi borom xam-xam yi ala kulli xaal borom xam-xam yi am na ci ñoo xam ne dañ ne waa ji jël alal may la yow moom fu mu ko jëlee sa yoon néew ci loolu moom dagan na nga lekk ko am na ci ñoo xam ne dañuy ne alal ji bu jógee fu xaraam loolee amoo droit di ko lekk amoo droit di ko jël am na ci ñi gën a diggu doomu ñoom dañ ñi waa ji bu dee fab gu ni alalam la ëpp dafa dagan la ëpp dafa dagan su boobaa même buy liggéey lu xaraam bu la mayee yow mën nga koo jël lii daal kon loolu lañ ciy wax mooy bu dee ne yow waa ji xam nga ne ci lu xaraam rek lay jógee ma joxe ci misaal koo xam ne sàngara rek lay jaay kookee mu jël alal jox la la gën mooy nga fegu ci alal ju mel noonu am maa nag bu dee mi ngi liggéey leneen waaye nag bi ci liggéey yàlla lu lu lu lu xaraam loolee da ngay gis ne la gën a diggu doomu ci borom xam-xam dañ ne su boobaa dagan na am na ci nag ay imam yu sant caam moom nee nañ yow daal su yoon niw ci comme da la koo may moom baax na ci yow loolu la ñuy wax ci loolu wallahu subhanahu wa taala alam naam bismillah waaw waaw bismillah waaw waaw waaw bu ne waaw waaw waaw waaw waaw ala kulli xaal ñooñu di leen jàngal ne Afrique mooy berceau de l'humanité amuñu ci benn ay preuve lu dul ay njort loolu ay njort rek la aadama fan la wàccoon loolee borom xam-xam yam nañ ci ixtilaaf am na ñu naan Inde lañ wàcc am na ñu ne Arafat la dajante ak Hawa loolee wax nañ ci lu bëri ndax aadama moo tabax kaaba gi am na borom xam-xam yu ko wax waaye li gën a dëgër mooy kaaba gi place baa nga fa woon mais Ibrahima moo ko tabax loolu tax mu ñëw ci saxiixul Buxaari yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Abi Hurayra laaj ko na ko waaw jàkk yi ñu jëkk a tabaxal yàlla ci kaw suuf ban moo ci jëkk mu ne ko kaaba ga mu ne ko ban moo ci topp mu ne ko masjidul aqsa mu ne ko diggante bi ñaata la mu ne ko 40 ans loolu kon mooy la gën a wér mi ngi noonu allah subhanahu wa taala alam naam mbokk bi ñu mujjee ci mbokk bi waaw bismillah waaw waaleykum salaam ah non dégguma kan moom moom kër gi nga ne waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw nam mën a naxante moom loolu moom xawma ko li ma xam daal mooy ateb sharia ateb sharia daal bu dee ne bi bàyyam dee dañ koo miraas na ko néeg bi sam néeg la néeg boobu am na droit dëkk ko am na droit luye ko loolu moom am na ci droit am naa nag nam mën a naxanteeg magam nag loolu moom moom beneen mbir la waaye atte sharia daal bu ne li ñuy wax moom mooy am na droit dëkk ko am na droit luye ko maadaama am néegam la mi ngi noonu mbokk julit wallahu alam ñu ngi leen di fàttali yéen ndaw ñi galawaay ngeen inscrire ci carnet may deret bi man ngeen ci sauver doomu aadama bu ngeen xamul te sauver benn bakkan mooy sauver adduna bi yépp na ko yonent bi waxee yàlla na yàlla defal ñu afiye fi dunia wal axira wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain